à fukki fan novembre 2021, ñen Nous, ñi nga xamné dañu né ay responsable lañ ci opposition bi dañoo xay ci ci créer fitna ak ci Dakar yi tribunal nous na procès bi 1er décembre ñoom seen bopp dañoo bëggoon def leneen ndax dañoo continuer di wax seen militant ak seen militante nañu dem ñu song tribunalu Dakar Njaay mu doon loo xam ne lu la loo ci Sénégal ngay doon kilifa wala ngay doon simple citoyen bu am sañ-sañ def lu mel mais bi loolu amee ñun Bokk waa Ndakaaru yi waa Ndakaaru yi rawatina ndaw ñi amul kenn ku leen topp ci jéeye boobu bu doon loo xam ne su dañ koy rafetlu ndax wane na na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu xam nañu ñi ñu war a topp ak ñi ñu warul topp ndax balaa ngeen ne naam ne fa ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéeye boo xam ne kenn doon ko nangu fii ci réew mi ba tax na ñëpp dañoo toog seen kër walla ñu am soxla doxe seen soxla n'est-ce te kenn jotu leen bundu xataal bi loolu amee aussi benn bokk yaakaar di rafetlu liggéey bi nga xam ne moom la sunu alkaati yi ak gendarme yi taxawoo tey ci ndakaaru njaay ba tax na tey amul kenn koo xam ne amul nga soxla boo war a doxi te mënuloo ko doxi taxaw nañ taxawaay temm bi ñu leen xamee woon ci ci ci xaranteef ba amuñu ku ci blessé amuñu ku ci am problème tey tey li nga xam ni ñooñu lu ñu namoon def fexe nañ ba loolu naxasaay waa benn bokk yaakaar di leen sargal di leen féliciter di leen encourager ci boobu fànn bi loolu wéyee benn bokk yaakaar di xamal na képp kuy citoyen maanaam képp kuy sénégalais rawatina nag ñi nga xam ne dañuy mbubboo woon ne ñoom ay responsable lañu ay leader lañu dañoo am obligation respecter institution yi les hommes passent les institutions demeurent Nous nous avons un intérêt respecter notre justice respecter khati alkaati respecter nos institutions, institution respecter le président de la parce que fait. lañ fa am loolu fait tax tey nous bi yëpp naw ñu Sénégal faut dem nous nous sur la liste verte ce n'est pas seulement les dirigeants mais peuple sénégalais dans sa maturité nous je wane l'appel appel à ce que

ku ci am dëgg am nga dëgg ku amul dëgg amoo dëgg te ñëpp xëy suba dem liggéey dox seen soxla kon loolu nga xam ne moom loolu mooy mandarga Sénégal ci Afrique ci àdduna bi nañu fexe ba sàmm ko ndax loolu moo ñu jig bu loolu weesoo li jëm ci élection yi nu ñëw muy élection gox goxaan taxawaay bi nga xam ne ñëpp moom la ñu war a taxaw képp koo xam ne tey candidat nga ak foo munti bokk luñ lay digal mooy nga dem ci terrain bi